nataalu ñeenteel bi yàlla ngi sàkk nit ci suuf jël benn ci ay faaram defar ci jigéen tuddee leen aadama ak awa yàlla ku bëggoon aadama ak awa la mu jiital leen ñu gënal ko ci lépp lu mu sàkk ay xaritu yàlla lañu woon yàlla defal leen tool bu rafet dëkkal leen ci mu jox leen ndigal ñu jëfandikoo bépp xeetu meññeef yi sax ci tool bi ba mu des benn mu tere leen ko ni leen bu ñu ko laal ñoom ñu weddi waxu yàlla lekk doomu garab bi mu leen tere woon yàlla bugal kuy bàkkaar mu dàq leen ci tool bi moo waral balaa nit di dund faaw mu liggéey sonn si kum bàkkaar day jural boroom naqar ak coono ba yóbbu ko ci dee